ngir ngay vidéo yi am solo yi Production da ngay beus ñu bind s'abonner bon noppé tek ci bi. Production la scène du mouridisme. ñu ñu kampe sujet point si point judiciaire bi kon yaakaar naa ni ko sàmm si sànq am na loo xam tàbbi na ci biir liggéey bi te it maanaam baaxoowuñ ko xam ci yoonu murit nawoon naa sax histoire xee moom bu dul sëñ Mountakha mi nga xam ne xalifa général des mourides mooy kilifa gi yaakaar naa jafe-jafe bu amee ci moom la war a lijjanti ko

ba toll foo xam ne nii moo ko waxee sànq lépp lañ ko bëgg a jëmmal ko mu doon turu sañ Tuubaa ñu ne nañ créer cette personne morale wutal ko carte lépp lu daara ji am ñu def ko ci turam ci biir statut it ñu leeral ci ba mu leer naññ ne en cas de dissolution lépp day dellu ci li nga xam ne moom moomeel Sëñ Tuubaa di communauté mouride kon lii pour ñoŋal liggéey Sëñ Tuubaa bi moo tax taxaw taxawal foofu ñi ko bëgg a sukkandikoo ne fii lañ bokkoon ci daara ji ñan lañ juróom-benn nit ñi nga xam ne ñoo ko porté bu fekkee am nañ carte membre kenn ko ci am na ko neen bi yëpp yëg te dana dugg ci cadre boo xam ne ne cadre association lañ doon association da nga am carte membre soog see revendiquer dara boo ko seet am minorité la ñaar fukki nit képp mën nañu ko dajale am na si koo xam ne ki ko porte nii Omar Ndiaye dix ans yi nii yënguwul si daara yi yéen est-ce xam ngeen ko fukki at léegi dinaa leen si leeral nag leen xam moom bu duggee si mbir nii yàlla ak man la moo tax gars yi sax sikki nañ ma si bañoon nañ maa ne kii kat àndoon nañu liggéey bi sëñ bi na daara ji te ñun am li sëñ Moussa la ñu confirmé daara ji histoire xeb daara Xuddoos la wax mooy li sëñ bëgg mbindeef mënu koo gàllankoor faw day am day am ni ko sëñ bi bëggee. c'est le dissident démissionnaire dissident ndax démissionnaire weesuwul fa nga doon liggéey nga bàyyi ko fa ne ko tëj tëj tëj ñëwatoo fa dem yu si ñëw fat leen di def ak ñoom réunion. man duma tudd ñooñu mais je nomme directement Youssou Diop qui est commanditaire de tout ça moo nekk seen gannaaw ndax lan dafa bëgg bëggu nee na du carrément du wut kayit te yoonu murid dafa ay statut juridique yoonu murid si boppam yow nga ne lànk doo ko def ngir lan lànk gi mu lànk bañ ko def nag moo fi mu toll nii moom la bëgg a justifier si lii yóbbu leen gars yi justice sukkandiku leen si li nga xam ne moom mooy association bu boobaa man danaa dédouaner kuma wax association mané dédé bu kan laal xanaa gisul xal li dal daaru xudus mais loolu génnewu ko ci kon on le cite nommément comme commanditaire de tout ça il est derrière ñom ñi mo len fat ñuy réunion ak moom suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñi eh, ñi ñi ngi ñu ngi bi yëpp rek di di di di jégaluwaat di am di jégaluwaat ci kàddu yi yëkkati ci kanamu jóor yi ndax dañoo amoon amuñu dañoo amoon yéene doog déglu rek ndax mel na ni déglu sax moo dàq waaye daa mel ni dañoo waxlu rek ñuy wax ci ndigal maanaam li wax ci li ko jëriñ waxee rek li convocation bi ñëwee ci ñun rek ñu àggale ko fa ndax it wax dëgg yàlla ñun ay mbokki taal bi lañ sëñ bi boole ñu maanaam boo xool fii dañoo dëkk ci ay gox yu fasanti ko amaana bu dul liggéey suñu doom mën nañoo dund ba faatu duñ gisante kon sëriñ bi rek boole ñu ñu war a ànd te sëriñ tax ndax lii bu ñu fàtte ni ak lu mën a xew jaam yàlla la jaam yàlla képp moo ñu tax ñu ànd du am jot am jot boolewuñu jaam yàlla képp moo ñu boole kon dañ ko war di sellal nag ndax jaan yàlla jaam yàlla moo ixsaanal da baax bu baax a baax ñu rafet rafetal suñu diggante te xam ne ñun ay murid Sëñ Tuubaa lañ te li ñaaw ndax man sama am kersa ndax sama portable ni muy sone su mu sonné damay tiit ndax ku la woo la naan la lu xew boo ko waxee ay sa mbokk taal la jóg. ragaluñ nak ndax sëñ Tuubaa lañ yaakaar ndax sëñ serigne mom ku ne xam fu yóbbu nañ ko deful dara kon ragaluñ waye dafa rafa tut te ñak rafet gi boole ak ñoo am na ñoo xam an ngeen ñu nek seen jëriñ ngay xol ci ñom ngeen and ay ñaar fukki ki kenn nit di len jaxas nek seen ginnaaw di leen bumax ci ñooñu te bëri na ànd ñoo xam ni bëri na tuutànk yoo xam ñu ne fi tax ñemewuñ dem. Mam, la tax ñemuñ dem ci lu bari ci ñom la tax dañ daan tok fi di wax ci diw ci wax ci diw ba ñu ragal tay buñ dellusee naan la ñeé bax yéen a bon wax na ko yusuf sëri bëgg la ngi def keneen nimu ko bëggee déedéet ni ko sëñ bi bëggee lañ koy defee noonu convocation bi nag man dama xëy barkaati dem am naa trois jours ma jot benn sms bu ma ko liiree ñu ne eh, eh, commissaire bu nekk dig moo la convoque moo la convoque ndax mën naa am sa corne pour convoque la ba ma ko liiree ma jàpp ne daa juum ndax man sama dund xalaatuma kenn ku ma ku may amal problème tey ku ma bëgg a convoqué dama laaj sama coordonnée envoyé ma SMS ma jàpp ne yor na sama numéro kon bu doon bu doon lu yoon maanaam dina ma ma bàyyi mu sedd ba démb ci suba la am kenn ku ñoo benn inspecteur benn euh, adjudant ku ñuy wax ko woo ma ni mu kooku si Ablaye Diop man ko Ablaye Diop man ko waaw mun ma dañ laa jox convocation man convocation bu demee nan mun ma sama benn kilifa moo ma ko jox pour mu indi la ko man ko maanaam ki ma convoqué kan la. mu ne man de xaw ma ko dañ ma koo jox xanaa su ma ñëwee ba ci yow ñu woo ko ndax sama kilifa la mu leeral la ma koy tegtal di ko tegtal di ko teg ba mu ñëw fa moom bërëb ba may liggéey ba mu ñëwee indi fooy bi ca gannaaw gis naa ngi def adresse fu may liggéey kon kooku xëy na bu toppoon adresse sax dina ko xam mais dafa bëggoon lu gën a leer ba mu ñëwee ma laaj ko avant ma yëg convocation bi lii pour lan la mu ne man xaw ma pour lan la sama kilifa moo ma jox pour ma indil baax na mun ma ñaar leen su ma la génnee keneen ki di xam ma génn mu génn ko muy Serigne Mbacke Thioune man ko kii xam kii xam nga ko man ko xam naa ko mu ne bon war ngaa xam li ñu leen man ko xam naa ko moom mais xamaguñ lu ñu ne si saa si nag sama xel am na tulum dem mu woo sëñ Cissé boobu yaakaar bi jox ma ko waaw mu jox ma ko man laa ko sëñ Cissé man de kii dama indi convocation ma bëggoon xam lu yëlee convocation bi mu ne ma waaw ci mbirum isu taraxe daal xudóos daa am benn benn collectif bu ne ci Isa Daxu ñoo leen ñoo leen porte plainte ci procureur procureur jox ma dossier bi ku ñoo Omar Ndiaye moo ko jiite waaw man ko loolu la man ko waaw man baax na. ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fii ci Xidma production da ngay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee teg ci cloche bi. Production, la scène du mouridisme.